mu xam naa ci cadre performance funambule boobu noonu ñu ngi jëm ci wàllu jeexital bi buñ doon mën a wax tamit lu ñu mën a retenir ci par rapport ak ñetti fan yi si les sources du danger ak ci li nga xam ne moom moo dellu ci wàllu intention bi ak action bi yooyu noonu yëpp ci semaine mentale bii nii. te ñu waxtaanee léegi une performance funambule bu nu mënoon am à retenir lan lay nekk. ku seetlu mbir yi di nga seetlu ni lépp ci nit ki la dellu parce que en effet lépp ci nit ki la dépendre nit ki mooy nangoo honnête nangoo am yitte ak yéene gu jaar yoon. mbir yi mën a demee ni mu war a demee waaye nit ki bu gëmee boppam gis boppam bëgg forcer mbir yi jëmee nee na ni mais yàlla il est inévitable il est inévitable nga nangul ko li mu bëgg dana am nga ñàkk koo nangu dana am l'essentiel rek mooy dana am te doo ci bokk noonu rek la toll léegi nag jàpp naa ne ku nekk ameel nga sa bopp honnêteté bi ameel nga sa bopp yéene gu sell gi ameel nga sa bopp yitte gu sell gi wax ji nag mooy nit ki boo bëggee jëm kanam bëgg xool sa progression ci diw de ci temps sàngam def na nàngam di nga juum ndax li daje ci yow dajewul ci moom li yàlla soxla ci yow soxlawu ko ci moom kon nag nit il faut mu nangoo investir temps am xalaatam ak yitteem ci boppam mais nag pas d'une manière égoïste pas d'une manière égocentrique et éphémère déedéet nit ki il faut mu nangoo tabax boppam il faut mu nangoo jëriñ boppam mais jëriñ sa bopp ak lor ñi ci des ñaar yu bokkul la xam nga ñu bëri dañuy bëgg a indi xeetu choix yooyu cest à dafa am loo xam ne en fait c'est tellement malhonnête lan moo tax intérêt personnel intérêt la intérêt général du intérêt njëriñ la lii jëriñ ñëpp kay xanaa war na laa mën a jëriñ waaye nga ne fa ñukk ndax rek bëgg xool loo dugal sa poos <laughs> loolu mënul tudd njëriñ intérêt rek la mën a tudd wax nag mooy. intérêt boo taxawee ci kanamu yàlla ban valeur la am loolu nga jëndee ñëpp ban prix la am bu fekkee valeur ba nga ko jox ak prix ba muy jar bokkul ah def nga erreur d'investissement boo paree nag war a fay banque bi noonu rek la toll yaakaar naa bon ah bu ma ko doon résumer ci yooyu laa koy résumé nit moo ameel boppam honnêteté moo ameel boppam yéene gu sell moo ameel boppam yitte gu sell gis nga ñett yi bu ko nit ki réussir ci boppam li des yëpp ay la. waaw xam naa di jaajëfalaat kilifa gi bu baax a baax a baax.